jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am mbégte en contenté comme ni ñu leen koy defalee saa su mbokk yi ñu ngi fii ci stade euh, Amadou Barry bu waay mais ñu ngi ci stade Diomb bi ah mbokk yi ki ñu fi woo di ousin Production Ouzin Production moo ñu fi woo ci signature contrat bi nga xamante ne moo dox ci diggante Madji Madji ak Angleterre mbokk yi ñaari mbër yëpp a ngi ci biir kaa ñu dugg ci xool signature contrat bi ñaari mbër yi nuñ koy dundee ak Ouzin Production tey ban innovation la def ci làmb Wassare làmb Wassare auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di leen nuyu di nuyu Ouzin Production ak staff bi yëpp di si nuyu Père Birahim Seck di nuyu Gora Mbaxal Gora Ñang xale bu am jom di nuyu Ouzin Production ak ak membre staff bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ci liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey waaw lii nag jeunesse Sénégal moo ko moom jeunesse su làmb moo ko moom réew mi moo ko moom muy maladie universelle couverture maladie universelle la CMU ànd ak union départementale des crédits mutuels du Sénégal ànd ak le grand patron le grand monsieur un intellectuel comme Moustapha Mbengue di ko nuyu bu baax kilifa bu baax kuy jàppale askanam kuy jàppale jeunesse bi. di jàppale Ouzin production ginnaaw loolu ñu ngi nuyu Khalifa Gueye le patron de l'Estade Amadou Bari ñu ngi lay sargal Khalifa di kontaan ci yow li nga def ci réew mi ñu ngi lay ñaanal réew mi kontaan na ci yow ah projet 300 lutteurs ak Ouzin production muy jàppale làmb ndax làmb amul tànk ginnaaw làmb tànk kanam la am te làmb dafa bëri problème dafa am ñu bari ñoo xam ne bëgguñu làmb te xale yi dañ leen war a jàppale ñu bëre kon lii projet la bu am solo ni si ñëpp jàpp maa ngi woo écurie yëpp ñu nekk ci banlieue bi ñu ñëw ànd ak ànd ak ànd ak Ouzin production pour ñëw si mbapat bi mbapat bi dina commencé le 21 mars ginnaaw bi ñu tëggee màjj màjj ak Angleterre si arène nationale le 7 mars 2020 suñ ci paree dinañ dem Adrien Senghor def première journée. 300 lutteurs yi ànd seeg chef yi ànd si couverture maladie universelle pour ñu liggéeyal làmb pour ñu jàppale Sénégal pour ñu jàppale jeunesse bi kon da ngeen ànd ak yar ak teggin xam ni seen yëf yéen a ko moom bu leen ko yàq làmb yi ñu ngi koy bëgg a yàq te jaru ko kon nit du yàq teraangaam nit du yàq li mu moom kon xale yi nañu ràññee bu baax a baax a baax xool li ñuy def parce que li xew keroog ci làmb ji rafetul te jekkul na ngeen ci baay xel bu baax a baax baaxul. kon lii Sen Teranga la yéen ko moom ànd ak Ouzin production ànd ak ànd ak projet 300 lutteurs muy mbapat bu am solo ngeen bàyyi si xel bu baax di kontaan ci assistant bi di kontaan ci mbaru Sénégal di kontaan ci jeunesse Sénégal di leen bëggee di ñaan yàlla jàmm ci réew mi di kontaan bu baax di bu Moustapha Mbeng bu baax di ko jaajëfal jërë ngeen jëf kontaan si yéen di leen bëggee en tout cas ma ñu ngi lay xamal sa lamb la maj majj sa lamb la yéen a bokk ndey ak aiguille waalo yéen a bokk tey yéen bokk bàyyi na ngeen ci jàpp bu baax a baax fair play lañu wax bu dara yëngu que Sénégal gañ jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. il faut ñu wax ko ñi waral bés bii ñi waral ñi nga xam ne tey ñoo accompagner Ouzin Production di suñu tànk di sunu loxo di suñu lépp donc bu ñu ñëwee ba teew fii avec une forte délégation il faut ñu lim leen. ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di remercier ñi fi teew ñëpp seen tur ak seen sant di leen nuyu fi ñuy commencé mooy yàlla président de l'union régionale des mutuelles de santé de Dakar monsieur Moustapha Mbeng ma bëgg ngeen saluer ma ko nuyul ma ko sa targalal ma ko monsieur le président soyez la bienvenue di nuyu monsieur Mamadou Ndiaye de secrétaire général et le président du conseil administratif du mutuel de santé zone 1 des Parcelles Assainies di nuyu Maymouna mun na Ndiaye PCA de Jëppal ñu ngi lay nuyu di nuyu Awa Dialy Awa Dialy Ndiaye PCA de Médina 2 di nuyu Ndeye Fary Niane le PCA zone 4 des Parcelles Assainies di nuyu Awa le PCA Dakar Plateau ñooñu ñooy les présidents du conseil d'administration de la couverture de la maladie universelle di nuyu Youssou Mbaye mutuelle de santé de Guédiawaye di nuyu monsieur Moustapha Niang représentant mutuelle de santé de Guédiawaye bu loolu weesoo am na loo xam ne tey moo ñu accompagné muy la lutte avec la journée du 7 mars 2020 di nuyu Madji Madji qui est là présent adversaire de euh, Angleterre de Dorak mais waa ARES dañ fi teew ARES association. des responsables écoles et écoles de lutte du Sénégal monsieur Diakhaté qui est représenté par ARELS di ko nuyu ni ko jox waa mu toogal fi Malick ñi di nuyu Bourkhane Wade Bourkhane Wade un représentant de l'ARELS toogal fi Malick Ngingue ainsi que man mi Birahim Seck je fais partie de l'association des écoles et écoles de lutte du Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Modou Bey ah damay nuyu nag sama staff góoram baxal maa ngi koy nuyu yenn nañu fanaanuñu ba bëccëg ñi ngi ci di nuyu tamit suñu président mais xale la mais un responsable n'est jamais petit muy Ousin Ousseynou Gueye appelé sous le nom de Ousin Production Ousin ñu ngi la jox sa waay ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu aussi sama coordinateur communal ki nga xam ne tey dans tous les départements de Guédiawaye y compris la commune de Golf Sud monsieur le coordinateur Amadou Wuri Diallo accompagné di chargé des procès verbaux monsieur Youssou Niane di nuyu sama doom sama xarit sama lépp nga xam bi ma jógee Màkka moom ma njëkk a gaareel 4x4 ñëw jël sama aéroport ay je vous nomme monsieur le directeur Khalifa Gueye di nuyu Pape Fall qui est par Lat Diop di nuyu Akhlu Lamb yëpp di nuy Modou Bey di nuyu ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam merci de votre compréhension. dama bëgg ngeen xam ne union régionale des mutuelles de santé bi taxaw fii tey région de Dakar yëpp la taxawee. donte Ouzin doomu géejawaay la ñuy wax ne waa géejawaay nañu mobiliser wu ñu jàppale seen doom ndax am na xalaat boo xamante ne am na njariñ am na njariñ ci làmb dina suqali mbappat dina suqali làmb waaye ñun li ñu tax dugg ci làmb ji duñu promoteur duñu sponsor partenaire lañu dañu ñëw fas yéene ànd ak ñoo xamante ne la leen yitteel rek tey mooy jeunesse bi nga xamante ne mi ngi ci biir écurie yi te ñu xam ne juróom-benni téeméeri juróom-benni junni muy 6000 lutteurs mu ngi ci biir arène bi ñun ñëpp xam nañ ne ñaata ñoo ciy bëre ñaata ñoo ci am kàttanu fu ñu feebaree mën a faju ñun ñu ne yàlla ma nga ñu nattoo ñu nekk ci agence couverture maladie universelle waaye féetewoo li ñu tuddee mutuelle de santé muy ay kuréel yoo xamante ne da ngay natt sa morom nat boo feebaree ñu faj la mutuelle de santé yooyu nag tey ñoom ñoo ne law na ci askan wi naam nit ñi bokk nañ ci waaye demoon nañu ba ne dañuy lancé ci élèves yi li ñu tuddee seemi élèves pour xool nan la ñuy fajee xale yi nan la ñuy fegee njaboot gi faj leen ci njëg bu yomb ñu ne nañu dem ci seemi nawetaan nan la ñu xoolee ASC yi joueurs yi fay football ñu fexe ba yombal seen faj noonu lañu ñu ëlbatu ko tey ne nañu tàllal loxo ak lu làmb ndax gis nañu anciens lutteurs yi gis nañu ay lutteurs en activité gis nañu ndaw yi nekk ci biir écurie yi ñoo xamante ne ñu ngi am jafe-jafe ci seen carrière ndax ay gàllankooru feebar ñu ne nañu leen tàllal leen loxo xamal leen lan mooy couverture maladie universelle lan la mutuelle di jariñ lan la leen mën a indi pour gunge leen ñu ne nañ ko jaarale ci promoteur bi nga xamante ne am na ambition jël 300 lutteurs bëreloo leen te 300 lutteurs yooyu mu bëgg ku ci nekk mu am carnet bañ ci waxtaaneex moom gis tournoi bi nu muy demee nara law ci ñeenti departement ñu ciy bëre Tëngéej di ci bëre Dakar di ci bëre Pikine di ci bëre Géejawaay ñu ne lii war nañ ci dugal suñu loxo ndax doomu réew mi la mu am yéene ci askanam mu tànn ci jeunesse bi mu doon challenge bu mag bañ ci waxtaanee ñu ne lu mel noonu. ñëpp rafetlu nañ ko idée boo xamante ne la dafa rafet te ñun lañ ca jublu jàppale écurie yi dem ci écurie yi waxtaan ak ñoom écurie bu nekk fas yéene nañ fa ànd ak Ouzin Production ñi mu àndal waxtaan ak ñoom lan mooy couverture maladie universelle lan mooy mutuelle de santé ban njariñ la am nu mu leen mën a dimbalee loolu bu mu amee ñu ne nañu def journée de lancement journée de lancement bi pour fésal Sénégal ne tournoi 300 lutteurs bii ñu ànd pour accompagner Ousin ñu ne dañuy def benn bés boo xamante ne day doon moom la ñu jàpp le 7 mars ñu ànd ceex Ousin production 20 lutteurs nar ci bëre majji majji Angleterre am nañu responsabilité bu mag tey. toog ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen sant bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy euh, suñu signature bi nga xamante ni moom nañu def ci diggante Angleterre ak Madji Madji vraiment man Ouzin Production sama xol sedd na parce que woote ñu wuy si la dafa neex te tey bi ma wootee yaakaar naa ni askan bi yëpp ñëw nañu wuy ma di sant ñëpp li ma ci xaw a métti tuuti rek mooy suma partenaires yi muy ñi nga xamante ni mooy waa union régionale de département de Dakar te mutuelle de santé dañu xaw a tardé tardé bi ñu def nag moom xaw a métti tuuti mais temps bi la ak yi nga xamante ni mooy xat-xat yi waaye nag du ma def loolu sant leen ñoom parce que lii bu amee ñoom ñoo tax muy waa mutuelle de santé du union régionale mutuelle de santé de Dakar voilà ñooñu yaakaar naa ni lii bu amee ñoom ñoo tax mu am ma bëgg waa kaawu Angleterre ak kaawu majji majji ñu tàccul ma leen bu baax a baax voilà di sant ñi nga xamante ni mooy waa CNG aw ma seen fay gis naa taxawu bi ni ma taxawoo ci bés bi wan ma li nga xamante ne fa laa mën a jaar ba mën a taxawal lu mel nii kon tey ndaw bi nga xamante ni moom nañ fi yabal ci waa CNG maa ngi yóbbante nuyoo boobu ci Alioune Sarr ak Ndiambé ak Max ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bureau CNG maa ngi leen di gërëm di leen sant di sant ki nga xamante ni moom mooy suñu père Bourkhane di fi jël parole léegi aw ma fayam ci déplacement bi mu def ci 4 heures ba léegi mi ngi fi toog di xaar programme bi di sant suñu président Pape Amadou Fall muy président président des promoteurs wala di ko sant bu baax di ci teg ki nga xamante ni mooy mbay Mbaye Yékini ak ki nga xamante ni mooy Fallou Ndiaye bi nga xamante ni ñëw na ci bés bi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen sant di leen wax ni li may woote rek mooy mbër kenn ku ci nekk maa ngi lay woo ci fair play maa ngi lay woo ci jàmm parce que ñun ñëpp seetlu nañ fan yi li nga xamante ni moom na arène bi wane vraiment loolu rafetul ci image rafetul ci ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy dugal suñu xaalis ci làmb vraiment maa ngi koy maa ngi lancé appel bi bépp mbër boo xamante ni yaa ngi fi maa ngi lay lancé appel boobu ne lamb nañ ko teg ci fair play nañ ko teg ci li nga xamante ni fulla ak fayda loolu vraiment maa ngi ciy ñaan ñëpp leen ci sant di leen gërëm di wax mbër yi nag li nga xamante ni mooy tournoi bi nga xamante ni moom nañu war a démarrer présentation bi war a nekk le 7 mars arène nationale ñu war a présenter 300 lutteurs ci jouru combat majji majji ak ki nga xamante ni mooy Angleterre ñu war ci ànd ak ñi nga xamante ni mooy waa Sémi am partenariat ak ki nga xamante ni mooy waa union régionale de mutuelle de santé de Dakar loolu vraiment maa ngi wax ni képp koo xamante ni yaa ngi ci programme boobu maa ngi lay ñaan ne la Ouzin production nee na la boo demee ci sa fans club na nga waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni mooy Sémi muy couverture maladie universelle. ñun dey fas yéene nañ yéene bépp mbër bu ñu signeel dinañ jël ci li nga xamante ni moom nañu waxtaan ak yow wutal la ci carte sémi mi couverture maladie universelle vraiment loolu ñi ngi koy ñi ngi ci ñi ngi ko bëgg te incha allahu rabbi ni ñu ko waxante woon parce que dama bëgg ñu xam ni sémi ñun ñoo leen dem wuti ji pour indi leen ci làmb ji daje ki nga xamante ni mooy Moustapha Mbengue mu yombalal ñu li nga xamante ni mooy partenariat bi kon kenn ku nekk muy muy muy ménager yi di fans club bi di mbër na ñëpp fas yéene wut carte couverture maladie universelle parce que feebar faju yaakaar naa ni dafa baax ci njëg lu yomb ñu ne tey 1000 francs boo xamante ni ordinance la 200 francs nga ci fay loolu yaakaar naa ni képp ku ci nekk war nga mën a dugg ci loolu noonu pour bu la yàlla dogalee nga am nattu nga mën a am njëglu yomb ci loo mën a fajoo kon maa ngi sant bu baax waaye nag du sant te du sant Khalifa Gueye mooy directeur stade Amadou Barry vraiment bi ñu ko waxee li nga xamante ni mooy signature bi ñu jàppoon ko le 8 ñu pousse ko la li nga xamante ni mooy le 12 daf ma xamal carrément ne la Ousin ñëwal nga def sa signature defal naa la ko ci gratuite ci li nga xamante ni mooy ndigalam mooy kilifaam mooy Aliou Sall kon tey niñ ku def ku mel lu noonu bu ko defee jaadu na ñu remercier ko bu baax kon xalifa vraiment maa ngi lay sant bu baax ci li nga xamante ni nga def ak ak lu làmb nga ko defal mbër ngeen ko defal. di sant ki nga xamante ni nag mooy suñu suñu président muy Lat Diop nekk ci géejawaay moom it di def liggéey bu am solo du jël micro te duñu ko sant ñu ngi koy gërëm bu baax di ci jiital Bakary Traoré ñu nekk suñuy nit nekk suñuy xarit di wax ni ñun ñëpp benn la liggéey moo ñu tax a jóg programme baa ngi nii projet baa ngi nii projet bi nag muy tournoi de la jeunesse bi Néné Fatmata Tall moo ko moom muy ministre de la jeunesse tey bu ñu jëlee tournoi 300 lutteurs di ko fas yéene organiser te yaakaar naa ni bu ko déggee dafa war a ñëw jàpp ci tournoi bi doxal ko mu dem te xam naa ni xalifa dina ko yeggee te bu ko jotee yaakaar naa ni lépp luñ ci war a def dina ko def incha allah di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax encore une fois aw ma fayu Moustapha Mbengue sama grand la sama exemple la ci man parce que ni muy doxalee. laay xool toujours di seet nan laay doxalee lu mel noonu mu nekk nit ku baax ne nit ku yiw nekk nit ku nangoo dimbali ay jeunes yi nga xamante ni dañuy organiser genre manifestation. kon euh, Moustapha aw ma sa fay yàlla na la yàlla fay di sant ñi nga xamante ni mooy union régionale bi nga toogal ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax di sant Binta Fatou fàttewu ma la maa ngi leen di sant ñëpp. nabu aw ma sa fay man ak yow démb la tey seega ñëw ak sa rakk jëli nga xamante ni ñoo yor table major yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di sant bu baax ñi nga xamante ni mooy waa staff Ouzin production tey su ma demee ba mën a def lu mel nii ñoom la su ma limee damay juum waaye Père Modou Père Birahim Gora Cheikh Thiam Moussa aw ma seen fay ci loolu di ciy wax ki nga xamante ni mooy suma papa ji taxaw moom it ci trois heures ba léegi mi ngi fi kon Père vraiment aw ma fay ci li nga xamante ni mooy. di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa wasaare presse bi waa Lutte TV ma seen fay kon nag ñaari mbëri yaakaar naa ni ah, seen temps yegg si na père ma jox la micro bi ñu def nag ñun ba heure bi kon vraiment ñoom aw ma seen fay ci li nga xamante ne ñoom nañ def ak ñun ba heure bi kon vraiment maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam solution pour que parents yi nga xamante ni xam nañ ak waa mutuelle de santé ak ñi toog ci biir ak président Khalifa Gueye ñëpp di gis ñaari xale yi xam nañ leen di waajal bés bi léegi nag sama première question maa ngi koy jox mbay màcc màcc daal dañ koy dalal dañ koy teral yow la ñu fekk si waaye nag dana woon ni yéen a bokk département bi de. waaw di ko waaw asalaamaaleykum ginnaaw baatu asalaamaaleykum ginnaaw baatu auzu billaahi mina seytaani rajiim ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu assistance bi toog fii ñëpp sunu papa yi sunu yaay yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaw Père Pambaay loolu boo nu si laajee dañ ciy sawar a tontu parce que couverture maladie universelle loolu bu ñu koy wax ñun mbër ñoo ci war a jiitu waaw parce que gis nañ kon li nga doon expliquer fii sànq ba léegi rek wàllu mbër yi wàllu assurance ah mbër yi gaañu boo blessé doo am foo fajoo ah tey ñii ñëw couverture maladie universelle bii ñëw di dimbali ñun ah ñu ne ci làmb ak bépp nit boo xam ne parce que tey boo gisee wér moo am ak wéradi loolu moo am ci àdduna wér ak wéradi kon ñoom daal da leen ni jaajëfal di rafetlu tey parrain bii ñu nekk ci Ouzin production bi tëgg làmb ji waaw li ñu leen xamal daal mooy incha allah fii ñu ko njëkkee ci ñun incha allah dina am yokk yokk ba ñu yëg ñoom ba xam ne ñun am nañu yokkute daal moo naam waaw li ma leen wax mooy leen ñi ñëw rek ci ouverture maladie universelle feebar faju parce que kuy ñëw naan la feebar faju moom yaakaar naa ne loolu bu la ko waxul sax yow sa bopp yaa war a teel a ñëw ci moom loolu daal dañ koy rafetlu daal di ko rafetlu daal la ñuy wax daal waaw maaleykum salaam maaleykum salaam dama jiital nuyu di nuyu ñu fi toog yëpp kilifa yi fi toog waa CNG ak su mel ni directeur bee toog Khalifa Gueye di nuyu capitaine mi promoteur bi parce que lii man li ma gën a tax ma jël combat bi lii bokk na si parce que kii xëcc pour ñëw dugg si biir mbër yi mbër yi gàllankoor ñu doon am di jafe-jafe jaaxle nga ñëw ak couverture maladie universelle non kon su ma jëlul combat bi bëree ko rek même bu ñu si joxul dara sax du ma góor moo gën a loolu moo gën a tax ma jël combat bi. parce que dañoo seetlu na moom dund bi feebar ak wër a fi nekk te ku euh, ku si mel ni couverture maladie universelle ñëw war na couvrir mbër yi couvrir ku dul mbër couvrir ancien gloire yi loolu nañu waxante dëgg loolu yombul nañu yombul kon lu mel ni buñ si bu amee dañ siy sawar ñun mu jaral ñu lu ne xar suñ tànk tubay ba ku feebarati dootoo jaaxle njëkkee sama bopp di ko njëkkee sama bopp di woo sama morom mbër yëpp di woo ñëpp ñu jublu si lii man dina am ñoo xamante ne man dinaa jël suma moyenu bopp inscrire leen parce que pare naa bu yàgg dama pare bu yàgg man pour man pour man dëkk sax ak koñ bi ñu bëri quoi man dëkk laa moom koñ la Angleterre fu ay Chelsea nekk ay Liverpool ne fa ay Tottenham ne fa ay Manchester City ne ay koñ la man dëkk la amul jaaxle amul jaaxle jaaxle amul jaaxle parcelle géej waaye ñun ñëpp benn lañ yaa ngi dégg lamb ñoo ko a defar comprendre nga suñu teraanga si la ne buñ buñ sàgganee ba ñooy dem di yelwaani wala ñu xool fuñ jëm de nañ fonk lamb ji ak faire pare quoi di ko ñaanal wér di ñaanal soo bopp rek ba bés bi di ñaan yàlla may ma dam si kaw waajee mooy damay ànd ak sumay mbokk waa Géejawaay waa Médina Gounass autorité yi yëpp bay di sëy sunu maire ah ak alin Sall maire Géejawaay Fuuta sama ginnaaw ah ak ak Mama sama ginnaaw kon man man jooyu ma autorité autorité yooyu ñëpp ñi ngi samay ginnaaw sama doomu ndey ah nekk sama ginnaaw koo xam ne daf ma jël yor ma ah, loo xam ne man moom laay repas man li may lekk li may lekk spécial benn sama doomu nday yor ma ko ah muy Mansour pâtisserie Teranga Mansour pâtisserie Teranga xam nga la ma wax demal nga entraîné ji rek yow sa wàllu lekk moom lépp maa ko yor kon man jooyu ma dara man namu ma dara bu bis baa incha allah Ousseyn mii dina xam ne gënuñoo gore si foofu laay ñëw Ousseyn mii dina xam ne gënuñoo gore ndax maa ko du tey démb la Ousseyn bëreel naa ko Mbapat parcel cinq combats Mbapat. mag Garga 2 bëri na Mbapat. Ousseyn moo ko tëgg. parcelle terrain église. kon man Ousseyn du tey du gan ci man Ousseyn man yàgg na maa tëgg di ma tëgg Mbapat léegi mbébét bi mu amoon loolu laa koy delloo njukkal parce que woon na dama lay tëgg Mbapat ba bay su may dugg arène yow yaay bëre suma grand combat kon Ousseyn kooku gor la li ma koy fayam mooy. jël stade bi duy ko ba fees dell del dell xam nga man damaa jege stade bi ñun duñ jël oto dañuy dox dem ci stade bi kon Ousseyn boo tëddee nelawal dinaa duy stade ba mu fees dell dell del waaw man maa la wax waaw. waaw man maa ngi koy waaj ak samay mbokk di si woo sam waa dëkk waa Casamance waa Sandiñeeri waa Sédio waa Karantaba di woo waa parcelle 1 ba di woo ku si mel ni Garga Mbossé suma doomu ndey la day sonn si man météo ma la toog ak sama boy nii sama boy yi waa ko ñam Manuel parcelle 1 ba 26 pare nañ pour mobiliser wu pour ñëw feesal làmb ji soutenir Ouzin soutenir ma si combat bi di ñaan yàlla may ma ndam si kaw maaji maaji di profito nag di woo sama sama directeur Moussa Diop man Dakar dem dëkk laay liggéeyee maa ngi profito di woo sama directeur Moussa Diop di woo sama sama seef chef Laman chef Ndene chef Ndiawar di woo ñëpp waa waa lu Dakar dem dëkk di wax Moussa Diop na ma na na na dëkk na ma jox lu lu toll cinq bus ma feesal leen cinq bus Dakar dem dikk ma feesal leen indi leen arena tour arène nationale incha allah li may tàggoo mooy di gërëm sama père yi père Doro ñii nga xam ne ñoo ma yar ak sama maman yi di leen gërëm di gërëm promoteur yi fi toog yëpp di jiital nuyoo bi di ko jox Fallou Ndiaye ah ak promoteur yi fi toog yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm waa Medina Gounass waa Guédiawaye di wax ne Madji Madji seen doom am na combat le 7 mars grand combat arène nationale damaa bëgg yéen ñëpp ngeen génn ñëw jàppale seen doom mu bëre daan ñi ñibbisi fetee ko nga xam nga jour boobu li tax mu gën maa ñor journée jigéen ñi la journée de la femme la loolu tax bis boobu gën maa ñor damay daan incha allah ci kàttanu yàlla may ko su ma yaay ah ak su may xarit ak su may am di jàmm incha allah yow Angleterre. waaw xel mu dar rek fu mu toll nii alhamdulilah rabi alamin alhamdulilah rabi alamin damay sant daal ñi nga xamante ni ñoo ngi sonn si man mooy waa parcel ku si mel ni Ramdaan yoo nee na ma xaalis bu bëri bëri bëri Garga Mbossé Modou ñoom ñëpp kenn ku nekk yaa ngi yaa ngi may woo di ma laaj foo tool foo tool franc góor a soog métro sama doomu ndey mee toog manuel mi taxaw ak sama booy maa fayal yaa ngi dégg di ñaan yàlla may ma dam si koom kii du maag moom moon moon sax làmb moo tëra rek man bëri naa ay grand combat ga moo ngi doog a bëri grand yàlla ma yàlla may dam si koom bu soobee yàlla incha allah